ah ma ne événement yaa ngi ñëw ay ca dewal gaaw ca Pikine Master Seng ca Ndiaye Jasner borom tissu am maanaa yi borom tissu yu am qualité yi ah Ndiaye Jasner ñu ngi ci vente de tissu en gros comme en détail ma ne soo bëggee cuub am qualité wala brodé Jasner Bageris wala tissu pour mariage ah numéro baa ngoog ci 76 921 70 56 wala boog 77 485 28 37 ah. kon ku bëgg tuse bu baax bu am maanaa bu am qualité dawal gaaw ca Pikine marché Zinc FC Ndiaye Jasner marchandise yaa ngoog rafet lool te taaru macha allah kon ay ca boog yàq yaa ngoog. ndeysaan borom basu la ngoog parce que boo jën meeke kam nangan sambu xoto socoro la soco xan kon yàlla yow na nga o kontaan Ibzo Cheval dom de Basoul ndeysaan ànd ak le chameau ndeysaan Basilongo malo walo xene ceeb wala ñankatang wala wala domoda kama xa pasong to borom tout droit ndeysaan yëngal na simal waaw waaw moo fa daanu final combat polémique boobu ndeysaan tey mu ñëwaat fi nga xam ne moom mooy nangaan sambu lambu Fall production waaw waaw waa Joal am nañ mbër fi naanaan la Omar Ngalla mbër a ngi nii gay naa ko mbër a ngi nii waaw Omar mbër a ngi nii de ngóor si mbër a ngi nii ndaanaan la jagleel ma ko ndeysaan perkal bi mu perkal ba ay yu la bi ñu ngi koy soog a dajji de sambu bugel waru qur'ayi cey ceeb maalo fa maalo fa xayno la dulin fa de cowaw semaga ñuren waxane namin poti sele Ngoné Mbédiène fii ci Nangane Sambou ndeysaan aujourd'hui le 5 mars 2023 waaye Fall production ñoo fi wotoon ndeysaan démb moo jël Fatick ci kaw njël bu sara nee na ana xaalis bi min na xaalis démb moo jël démb Fatick tey mu ñëwaat ndeysaan fekk ci njël bu sara encore cey poti sele rakku sele mele doom day Toubacouta ndeysaan ñu koy jaale yaayam Cissé la ngoog l'homme de Fatick ndax ku jël 5 millions Fatick loolu drapeau bu mag la tànk yi ndeysaan dugal na bu bo ci butéel ba loolu boo baatee boo campement ngeen wax la wala fan la tëj na ko tëj na ko ba mu des cat yi ceeñ ko teel la mag dee baa demal ndeysaan Mbacke Sélé Mboup Mbacke Sélé Mboup